soxna si abu zar mi ngi ci àll bi di jooy ànd ak borom këram di abu zar fekk daf doon sukuraat boroom këram gi ni ko soxna si ana looy jooy soxna si ni ko yaa ngi nii ci àll bi nar génn àdduna te amuñu menn mbubu muñ la sàngee mbaa kenn ku lay jullee abu zar ni ko na sa xel dal ndax am na benn bés ma taxaw ca madina ànd ak ay saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñëw fa ni ñu yéen mbooloo mi taxaw dey kenn ci yéen dana ci génne àdduna ca àll ba te am mboolam jullit daana ko jullee te ñama fa taxawandool ñépp génn nañ àdduna ba mu des man kon wér na ma ni man mii la yonent bi doon wax kon na sa xel dal mu ne ko soxna si ne ko nu may def Abu Dar ne ko bàyyi ma fii rekk incha allahu danaa am ñu ma julle ndax yonent bi wax na ko ca noonu rekk ay saxaaba romb fa ànd ak Abdullah ibnu Mas'ud laaj soxna si ne ko lu xew soxna si ni leen sama boroom kër gi moo génn àdduna amuñu lenn luñ ko sàngee mbaa ko ko jullee ñooñee daal di njëkkante wut luñ ko sàngee sangu ko ba mu jekk tëral ko jullee ko ñoom saxaaba ya ko doon jullee nag toog di fàttali ko benn xare boo xam ne xare Tabuk la woon Abu Dar waroon gëléemam doon dem ca xare ba far gëléemam daanu mu daldi di jóg dox ay tànki boppam ngir dabi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu àggee ba dab yonent bi yonent bi xool ko daa di muuñ daa di reetaan ni ko abu dhar yal na la yàlla yërëm yaa ngi nii dox yow dong te da nga génn àdduna yow dong te booy dekk yow mal xiyaam da dekk yow dong yow dong maanaam danañu la ràññee fippu ngir say jekle yu bari yu la suñ borom bi defal kon yéen samay bokki jullit xissa bi dëgg la jàngat bi mooy xoolal saxaaba yi fi ñu tolloon ci gëm kàddug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mboolem lu leen yonent bi masa wax duñ ci sikk sàkk mukk seen xel da cay dal ndax xam nañu lu am lay doon teyit mboolem lu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam masa wax ak saxaaba yi ni dana am ñoom ñëpp gis nañ ko doonte gannaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sax lañ koy gis loolu nag la mboolem kàddug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mel ci noon ba tey jii mboolem loo dégg ñu ne la yonent bi nee na ku ko wax am lii ku ko def am lii ku dem fii am lii nanga gëm ni luy am la ndax wax yonent bi la alayhi salaatu wassalaam faw wu mu am ndax kat yàlla moo ne yonent bi day du wax mukk ci bànneexu bakkanam lépp lu mu wax maa ko ko day ni ko wax ko kon day foo déggatee ñu ni la ku def sàngam gii am lii yonent bee ko wax ku wax lii am lii yonent bee ko wax defal mbaa nga wax faw di nga ko gis ëllëg ci kanamu yàlla subhaanahu wa ta'ala nañu ko bokk bàyyi xel